naa ni ñu ngi sant yàlla julli ci yonent bi di jaale d'abord euh, famille yu Mansour Kama yëpp ak njabootam di ñaan yàlla may leen xolu muñ euh, te yàlla xare ko àjjana bi gën a sell di ko jaale président de la république euh, di ko jaale réew mi yëpp ndax xam na réew mi yëpp moo yàq Mansour Kama li ñuy faral di wax moo di dañuy yaakaar ni Mansour nitu koom-koom rek la woon maanaam wàllu économie la doon toppatoo mais mën nañu wax ni Mansour lu bare la doon dox du kom kom rek kom kom bi ci la gëna fess ñepp xam nañu rôle bi mu joué pour patronat Sénégal ak si fi mu ak si tay té yéeneem mo doon patronat bi wala muy am sax ay organisation ñu dem ba am ben fédération patronale bo xamni day regrouper organisation patronale yépp tambali won na di ci liggéey ak bari bay di añ ba ñu gis ci ay ay résultats euh, té yaakar nañ ni kanam la jëm ci walu kom kom ba tay euh, dem nañu ba organisé bi ministre de l'Industrie, les journées économiques du nord nga euh, classe économique du pays yépp ak sociale la région de Saint-Louis pour la perspective économique yi nga région bobu am pétrole gaz ak yi génn région bobu dana doon locomotive manam nga Sénégal mais du ci walu rek la Mansour doon même bu fekkee ni ko def ci luy secret ak souterrain ci walu politique du assise nationale yi ñu mujj wax rek le un rôle ba mu rôle ci politique yag na lool ndax 1988 ba nga ni mi dafa lool opposition bi nañ ko ci bi euh, maître compagnons def ay état d'urgence am ci Mansour Kama dafa jóg sa Sassos taxaw di jaabante diggante prison avec palais de la République ba jàmm dellu aussi ba sedd ñëw daje bi nga xam ni Abdou Diouf jëkk da ko daje ak Ablaye Wade weeru koor la fajar Mansour Kama modèle jël oto bu ndaw bu R5 moko dawalal bopam, Ablaye Wade nekk ca biir ak man mi ñu jëkk dem Popenguine fajar rencontrer Abdou Diouf pour xool nan la def pour sereel le mi pour jàmm delloo aussi ci le mi ca la wax gouvernement de majorité présidentielle jóge ak yëpp ak xol yi booloo nekkat benn donc Mansour nitu rassemblement la nit kuy dajale la nit kuy boole la te yàgg na joué rôle boobu ci réew mi